mooy maire bi nañ xam ni maire boobu c'est pas un maire légitime dem élection daj ci ay coono ay nit votel ñu jël suñu vote bëgg ko lëndëm mais ñun waa booloo defar Tëngéej dañu jàpp ni ñun ñoo gagné élection yi à Rufisque parce que noor moo gën a vaste moo gën a rëy ci Rufisque te man mi keroog jouru vote bi dama jël ay oto yoo xam ni mag ñi nga xam ni dañuy voté ji li ma yóbbu si ay kaar ñu voté kenn xamul nan la toll te pourtant malgré tout ça maa ngi gis ay nit nekk ci réseaux sociaux yi naan même maam Gor bureau bi mu voté zéro la fa am xanaa kon loolu mooy xanaa ah, Mame góor kon woteelul boppam